waa fondation défense 221 dafa nekk benn organisation euh, non gouvernementale mooy benn ONG boo xam ne moom sosoo fële sa Amérique euh, tamit nekk ONG fii nii Sénégal nga xam ne dañuy def liggéey yu bëri si wàllum philanthropie euh, di dimbali ñit ñi di dimbali ñu ñàkk si wàllum santé si wàllum lutte contre la pauvreté ak aussi tamit si wàllum addiction to ak fondation bi dafay liggéey lu bëri si mbirum orphelin jàppale orphelin ak tamit si leadership di former nouvelle génération formation leadership africain. tey ñu gis na nga ñëw Mbacke indi fi matériel bu important lan lan mu yëg-yëg bi tey gira doon Mbacke. dama am mbégte am contentement di ñëw fii nii bu ma xam xam ne que ñun Mbacke Mbacke laa sosoo Mbacke tamit nekk dëkk boo xam ne dafa am symbolisme si ñun di dëkk suñu wasila Cheikh Ahmadou Bamba. Euh, tey it fii ñu ñëw tey dafay dëkk boo xam ne fii laa hôpital bii tamit nga xam ne euh, fii la fekk baax donc ñëw Mbàkke dafa nekk euh, mbégte mu rëy te tamit dafa nekk loo xam ne waa Mbàkke yàgg nañ koo laaj tey nag la ko yàlla dogal mu ñëw ndax mën nga ñëw digal ci bi nga indi Mbàkke tey donc matériel bi nga xam ne tey ñëw moo ngi matériel valeur u matériel bi nag dafa ànd ak li ñuy wax ay équipement équipement yi nga xam ne ay la am par exemple ay lits d'hôpitaux am matériel échographie dernière génération am ay table de consultation donc euh, bëri tamit ay consommables te lu jëm si wàllum faj yi ngay def si premiers soins yi muy ay seringue euh, euh, lu nekk matériel fi mu nii am na ko loo xam ne si ak tamit man am na chirurgie matériel chirurgique tamit bëri na si loo xam ne dañ ko tàmbalee si commencement bi ba jeexal ba jeexalitu euh, faju euh, malade bi loolu euh, matériel bi ñu indi dinañ leen dina leen jàppale si loolu. ndax mu ngi ñëw di ko ci bilan fondation 221 ci année 2019 fii Sénégal. waaw bilan fondation si année 2019 mën nañu wax c'est un bilan bilan assez réjouissant ndaxte fondation bi soo jëmee si côté santé fi mu ne nii. li nga xam ne àggoon nañ ko si fin d'année daaw mooy par exemple deux milliards yi fi mu ne nii léegi ñu àgg fa suñu ko àggagul léegi ñu àgg si deux milliards investissement wàcc si wàllu santé si suñ campagne d' adduction d' eau mu nii macha allah def nañ lu mat dix puits modernes yoo xam ne ñoo ko jàppalee population bi euh, suñu institut de leadership commencé nañ ay yenn programme yu bëri te mu nekk programme visite euh, visite ak leader yi nga xam ne moom lañ am fii euh, mu nekk programme jeune en herbe ak yeneen programme yoo xam ne fi mu nii fondation bi nga koy def ak tamit ñin ñi nga xam ne prise en charge orphelin yi fi mu nii fondation bi da koo yaatal ren yokkaat cinquante si nga xam ne mooy orphelin yi nga xam ne tàmbale nañ ko leen jël euh, di leen jël en charge donc si domaine bu euh, de la fondation duñ leen woowee sax membre de la fondation 221 ndax membre am na loo xam ne peut-être moom la mais mën nañ leen woowee bénévole wala volontaire de la fondation mooy ñi nga xam ne suñu jàmbaar yi nga xam ne kenn fayuñ leen kenn defuñ leen joxuñ leen festin mais dañoo am yéen liggéeyal seen askan yéen a liggéeyal seen askan boobu nag mooy wane leadership bi nga xam ne moo nekk si ñoom muy guddi subaak ngoon muy sedd ak muy tàng ñoo ngi si euh, ñoo si mbedd mi ñoo ngi si terrain bi di liggéey pour le bien-être euh, du Sénégalais donc ñoom xaaruñ kenn si dara dafa nekk dafa nekk ñoo xam ne awma seen fay yàlla rek am seen fay liggéey bi ñuy def fi mu ne nii yàlla dafa yàlla xam ne ne presque fi mu ne nii kenn xamu ko démb mën naa leen wax ñu fi bëri nelawuñu nelawuñu ndax di xaar conteneur bi di ñëw nekk suñ procédure port yeeg lu nekk nekk si te kenn du nelaw te kenn joxuñ si fistin sa morom joxuñ si fistin dañoo bëgg seen askan bëgg nit ñi bëgg dimbale te ñoo ngi ci euh, te ñoo ngi koy def donc ñoom dañoo nekk ay citoyen modèle parfois damay wax ku bëgg a xam leader na nga jël benn volontaire fondation 221 roy si moom